gan Djibril Ning secrétaire exécutif pour plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections du pacte Seigne bi Ning ñu ngi euh, ñu euh, Georges Dethie Diop maa lay la santé invitation bi euh, di am mbégte rek teew plateforme des acteurs mhm. de la société civile pour la transparence des élections

waaw euh, euh, euh laaj Bobu Sawarna naa lool tontu ci. Mhm. effectivement am na entre opposition bi ak euh, majorité bi ci affaireu chamber fichier bi alors dafa am ñaar yu mat a leeral ci njëlbeen. Mhm. benn bi euh, élection dafa am solo lool ci réew bo xamné démocratie la ndax ci lañuy ñuy réew mi. ci la ñu koy joxe aussi bu fekkee ne da ngay dem alors euh, ñaareel bi mooy Sénégal dafa bokk ci réew yi nga xam ne euh, dañ leen di wooye démocratie parfaite maanaam démocratie yoo xam ne dañu matale ndax dañu xaajale ñetti euh, xaaj réew yi ci démocratie ñi nga xam dañu nek démocratie parfaite ñi nga xam dañu nek démocratie imparfaite manam démocratie lañ waaye dafa am ay matadi yu bari yu nek seen biir ak ñi nga xam dictature lañu dañuy wayé seen bop république démocratie waaye amuñu dara ci loolu alors ñaar yoyu taxna ba euh mbiru élection Sénégal ak acteur yi fi nek jox ko solo bu maga maga mak alors audit fichier bi nak li tax mu indi ciow comme yeneen yi yi fi jotona am euh dafa am ñaar ba ñett benn bi euh évolution rapide bu démographique euh, électeurs yi parce que dañu nek rew mo xam ndaw yi ñoo ci ëpp bo jëlé 2000 rek électeurs yi ñi ngi dolon ci environ 2 millions et quelques Tayji, y 6 millions 600 et quelques donc il y a des alors dafa am manam euh, ñi nga électeur lañu ci liste électorale bi benn bi moy état civil benn bi moy liste yi bi tribunal lu mel tribunal mm-hmm ñett yooyu ñàkk lëkkaloo bi ñu ba ñi nga dañu wala fi wala duñ leen régulièrement maanaam mise à jour du fichier bi. du donc donc du automatiquement comme ni muy amee ci réew par exemple France fichier bi dañ ko institut bi INSEE institut national de statistique ñi changer adresse ñi nga xamné dañu gañu ak ñi euh, leneen dañ leen di dindi automatiquement ci ci fichier bi ñi nga xam dem nañ ba am majorité électorale dañ leen di defal rapidement carte électorale euh, carte d'électeur envoyé leen ko seen kër du laaju sax ñuy dem di rang ci ay commission administrative alors euh, ñettel bi nak moy dayo bo xamné acteur yi jox nañu ko

li nga xamné expert yi wax nañu ko euh, jàng naa ko ñun ak expert yi ñoo liggéeyendo ñun ñoo défar terme de référence yi maanaam liggéey bi nan la wara démé expert yi ñun ñoo leen recruter ak cabinet bi ñuy wax euh, euh leen ak benn cabinet bo xamné ne nañu ko. ERA. Hmm? cabinet ERA wala. ERA ñoo def lancer offre international bi ñu ñëw ñu recruter leen ERA recruter leen soumettre ñu ko ñu valider ko bi ñu ñëwee si rencontre ñu wax ñel seen calendrier wax wax nañu seen calendrier de travail ak nan la ñu bëgg a liggéeyee ñu waxtaan ak ñoom ba déggoo ci loolu alors au fur et à mesure aussi ñuy liggéey pàcc bu ñu def dañuy ñëw indil ñu ko ñu càmbar ko waxtaan ak ñoom valider ko avancer ba ci conclusion yi. foofu yëpp opposition bi bokk na ci yooyu opposition bi bokk na validé ko donc dama la mu bëgg wax ne la euh, am na ay yimu mu validé am na validé wala yimu def ay observation maintenant autre chose c'est est ce qu'on en a tenu compte ou pas. D'accord. voilà alors euh, li nga xamné mom mo génn ci euh, ci rapport bi provisoire bi ndax rapport définitif bi war nañ ko remettre tay wala suba ñun ni ñu ko jàngatee mooy te loolu auditeurs yi wax nañ ko mooy boo xoolee normes internationales yi nga euh, euh, les normes internationales les prescrits internationaux ci wàllu élection ay le Sénégal ci fichier bi respecte l'essentiel de ça donc de ce point de vue on peut dire que le fichier est fiable mais nous, pointé nañ pointé premier élément nee premier élément vérifier ñu nous woon vérifier dans nous nous euh, tegee système de de parrainage bi euh, gana bi ko conseil constitutionnel accepté. waaw ngi donc d'abord loolu euh, moo am sur ce plan-là alors maintenant ci walu organisation ak fonctionnement fichier bi yori yorinu fichier bi ak niñ koy jëfëndiko fofu la matadi yu yu bëri am te auditeurs yi seen bopp souligné nañu ko wax nañu euh, par exemple Sénat amul ay les moyens pour appliquer ses prérogatives entièrement wax nañu également euh, carte électeur yi ak carte d'identité ni ñu ko bolé dafa indi pëccëxoo ak ay ay jaxaso jaxaso ne mën indi euh, yàq ci élection yi nañu jël carte d'identité bi def ci les informations euh, euh, numérisées dématérialiser les informations électorales def ko ci carte d'identité bi nga xamné ne carte d'identité ngay inscrire carte d'identité ngay voter. wax nañu également le lëkkaloo bi nga xamné ne yi ma doon wax légui mhm. état civil bi tribunal ak liste électorale yi ñak nañ ko lëkkaloo wax nañu également L65 ak L66 nga xamné buñuy distribuer carte électeur yi euh, euh, euh acteurs yépp duñu fa nek wax nañu L31 ak L32 ñi nga xam dañu leen tëj kasso té ñu am continuer di am sen droit électoraux té duñ leen may ñu wote ñi nga xamné japp nañ leen préventif té tëjaguñ leen duñ leen may ñu wote ñi nga xamné ah dañ leen japp dindil leen sen droit électoraux comme Khalifa Sall ak Karim Wade té juge bi prononcé wul loolu parce que loolu peine complémentaire lañ koy wax. Mhm. maanaam même bu ñu la tëjee cinq ans quel que soit le délit. juge bi dafa war a wax ne. Mhm. léegi nag contenu condamnation boobu. mënuloo am droit électoraux. te bu ko waxee tam day wax ne ci diir sangam bu delloo ba jeexee nga dellu amaat ci sa sa kile ci si cas yoyu mala wax yëpp. meunuñu citer loolu. ndax amul commission administrative yi commission administrative yi ak tribunal amul lecolo, bu leni may ñom ñuy jot casier judiciaire yi pour xamné diw génne nañ ko diw condamné nañ ko perte na droit électoral wala perte ko ñu mën ko. conclusion c'est fondé non mais bien sûr. donc yoyu yep, euh, wax nañ ko té yoyu dafa nekk ci li ñuy wax organisation ak fonctionnement wu fichier donc sous un résumé sur le plan des à norme internationale fichier le Sénégal respecte l'essentiel des normes Madame, le suffrage universel est reconnu par le Sénégal Madame, électeur bu le Sénégal le respecte le Sénégal respecte 16 000 bureaux de vote yépp électeur bu nekk dafa am bureau le Sénégal euh, fichier bi moins de 18 ans ne ci gis nit mu nekk wala amul doublon et cetera donc am ay caractéristiques sur le plan international di wax Sénégal respecté mais, du point de vue maintenant fichier bi ni koy organiser. Hmm. Hein, ni fonctionner ci la donc si c'est pas de nature à compromettre la sincérité euh, du, vote euh, bu voter par exemple euh, en tant que société civile lan ngeen mën pour concilier ñaari ñaari alors avant cela je dois dire que euh, matadi yooyu euh, euh, auditeurs yi dañ ci def ay recommandations ay digle yu ci def ah, euh, bu euh, Sénégal top noko ko ba rectifier ko dugal ko ci code électoral bi dugal ko ci wara dem ci constitution bi yi nga xam dañu wara jël ay loi ñu jël ko respecté ko euh, loolu na may Sénégal mu dem ci élection yo xam mata di yoyu du impacter négativement le processus électoral la la la l'intégrité et la transparence du processus électoral mais buñ ko ci bàyyee dugaluñ ko fay impacté donc, ça ne remet pas en cause la cohérence globale du fichier, mais d'impacter négativement sur le processus électoral du point de vue de son intégrité et de sa transparence. Alors, euh, vous allez me demander, mais audit Amon, par exemple 2018 Amon 38 recommandations est-ce que a eu ou pas il aurait fallu que nous un acte de vérification et de certification après que une commission se soit réunie pour dire que dugal na les recommandations mu am des experts commis ou une commission qui vient voir pour constater que auditeurs yi defoon nañu audit defoon nañu yi recommandation commission daje woon na dugal na wala dugala wala bi duguna wala bi duggul wala bi niñ ko dougalé baxul mu délivrer un certificat de euh, de conformité ou de comment on le dit euh, une, certification mm. pour certifier un peu ça or audit di jot am Lolo amul pour wax le euh, fichier bi est aujourd'hui c'est son instabilité parce que vous avez 2000 ba 2021, 2021 a quatre audits euh, internes nationaux 98. Non, non, de, 2000. 2001. 2007. 2009. Nous audit yo xamné sur le plan national lañ ko def avons des ñetti audit yo international 2010 2018 ak bi muy ñatt muy sept audits ça montre ah ah. c'est une moyenne de d'un audit tous les deux ans ou tous les trois ans donc 21 ans Cette 7 audits mm-hmm. ça veut dire il y a une moyenne de d'un audit tous les deux ans ou tous les trois ans mm-hmm. donc il y a une mm-hmm. instabilité en fait les seigne bi euh, ñu né fichier bi ñu ko gérer à euh, euh, Malaisie ba opposition bi sax amat xeyna deluat ci ñort gamu amone ñet fichier ñet fichier mo am wala ben fichier mo am waaw man benn moi mais leneen mu dafa c'est-à-dire que du pouvoir bi bu Macky Sall régime bi mo commencé lolu bi ñu doon fay <laughs> carte d'identité numérique yi ak. Abdoulaye ak carte électeur numérique yi su Abdoulaye Wade. Hum. dafa euh, contrat ak une société bu ñuy wax de la rue je crois que c'est ça comme ça que hum. s'appelait la hum. société mon société bob mo une carte d'identité avec ak carte électeur yi alors ni aussi un ñëwé dañu def contrat avec ay malaisiens je crois que c'est une société qui s'appelle Iris. Hmm. bien sûr. est-ce que tu vois. donc société bobu dañu ñom dañu am buñ la joxé un logiciel dañu am euh, droit de propriété intellectuelle est-ce que tu vois donc biñu négocier accord bi le Sénégal warona def et qui est intelligent nous mu négocier un transfert de technologie c'est-à-dire nous former ay sénégalais. mën a gérer gérer fichier voilà ñu ànd ak envoyé s'il le faut quelqu'un ici nous ànd ak sénégalais équipe ñuy gérer affaire bi fii au Sénégal mais puisque loolu amul aujourd'hui les auditeurs il a fallu chaque fois lui demander autorisation Malaisie pour accéder. Euh, à la base de données AFIS. Donc, l'eau est-ce qu'il y a Ça pose un problème de souveraineté nationale. Justement, avec aussi fiabilité par rapport à liggéey 8. Ah ben, bien sûr alors il y a eu daf ko war régler donc les contestations ne sont pas toutes infondées il y en a qui sont fondées largement fondées il faut que nous dirigeants yi góorgóorlu pour mën a matal wargar yi ñu wara matal yépp ci walu démocratie ci walu élection Tay recommandation yi am yépp te auditeur yi def ko ci rapport provisoire bi mu dara rapport définitif tay. est-ce que buñu euh, matalé yoyu exécuter ko yépp élection mën na am atum 2021 absolument loolu bu fekkee ne bii euh, loolu yëpp ñu signalé intégré nañ ko matal nañ ko dugal ko ci ci ci fichier bi pour defaraat fichier ba mu ba mu gën a ñoŋ non seulement élection mën na am mais élection yu mucc ayib mën na am ci Sénégal ci diir bi ñu ko jàpp. mais ci ci wàllu woowu am na ñuy ragal euh, opposition boycotté élection yi yow euh, loo ci gis bi ngay ak ñoom. non loolu nag moom waxtaanee guñu ci ak ñoom bon yaa ngi ma doon laaj sànq la société civile di def mun naa la wax ne déjà en 2000 quand Ablaye Wade a refusé avec les cartes israéliennes de participer c'est la société civile qui avait fait les démarches pour concilier Diouf et Wad daal di def audit foofu la njëkk audit bi am n'est-ce pas euh, pour rassurer l'opposition et à ce moment-là euh, ñu les listes électorales par bureau de vote étaient déjà parties Diouf a mis un hélicoptère à la disposition de la société civile et de l'administration ils ont refait le circuit pour retirer les listes qui avaient été déposées pour déposer les nouvelles listes éditées à la suite de l'audit qui avait été effectué par la société civile. Donc, euh, depuis 2000, la société civile fait des médiations en matière d'élection. Sur le parrainage, on avait fait une médiation, on avait été reçu par le président de la République, même si on, nous n'avons pas été suivis. nous n'avons pas été suivis mhm. par, le président de la République. Parce que le 19 avril, la veille, le président était à Abuja. Nous avons dit à l'État, notamment au président Ignace, qui, était, qui le représentait dans cette médiation, qu'il fallait qu'il suspende un peu, un tout petit peu, le vote de la loi pour que la commission sur laquelle on était d'accord qui devait réunir l'opposition, la majorité et euh, la société civile se réunissent pour discuter des modalités. Mm. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes modalités qui posent problème et qui ont fait l'objet de condamnation de la CDAO. Mais nous, ne pas. par exemple, le Sénégal, quand même, il y a une alternance, euh, multipartisme en depuis très longtemps, nous avons Sénégal, euh, démocratie, nous avons il y a ñu nekk ci affaire fichier électoral c'est quoi c'est symptomatique de quoi parce que dégg naa la ngay Sénégal démocratie parfaite. voilà voilà voilà c'est ça c'est-à-dire que en réalité euh, nos pays sont confrontés à une crise de la démocratie de la démocratie représentative tu vois et euh, euh, il y a une crise de confiance hein. très forte ci amna ñak ko ko luté bu bu bu bu yaatu bu am waxuma la digënté opposition ak majorité ci suñu réew yi yépp mais digënté dirigeants yi ak citoyens yi lolu mo nekk à la base donc c'est un problème de gouvernance en réalité problème mu yorine la mhm. ni ñuy yoree suñu réew yi waaw euh, yorin wi war naa gën rafet war gëna gën dëgër war naa gën a méngoo ak bëgg-bëggu citoyen yi war naa gën a méngoo ak euh, classe politique bi li ëpp ci ñoom <coughs> li ñu jàpp ne loolu moo war a nekk jërëjëf jërëjëf Djibril Gningue euh, secrétaire exécutif bu plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections merci Mohamed Alioumba di euh, nuyu Astou Mbenn Thioub